mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk daara Abdoulahi Gaye moo leen di nuyu di leen ziyaare ci subak altine ji di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu jàmm yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit sàmmal ñu suñu iman rafetalal ñu ko te bakku ñi yóbbal taw bi macha allah dafa ñëw rek mel ni lu indi ñaan waaye contenu ñaan bi la ñu war a gën a bàyyi xel lu ma jublu ci lool mooy li muy wax ci biir ñaan bi dafa wax ni allahumma kfini haulaai l arbaa شر من سمع عني خيرا فكتمه وشر من سمع عني شرا فنشره وشر من اغتابني من خلفي وشر من يراقب حياته بحسد دا فاي نيان يالا موتاخ جولي دا فور بوج نيما نيان لول ناخ نيان يونتي عليه الصلاه والسلام من الدعاء سلاح المؤمن نينا نيان موي غانا يو جوليت تا امنا اي ادفيرسير اك اي انمي يو خامتيني غانا لو ام دوله nga wara tey ngir mucc ci ñoom waaye am na ngannaay yoo xamante ni du la ci génn ndax ñoom arme non conventionnelle la ñuy utiliser maanaam li ñuy jëfandikoo ci arme loolu yoon sax tëralu ko ñooñu nag wax dëgg yàlla il faut nga am système bu am doole boo xamante ni moom lañ ngay défendre ci ñoom ba bu dee ay missile lañu yor nga yor ay anti missile te loolu mënoo ko jëlee ne fudul sa borom mun kon suñu borom maa ngi lay ñaan nga fegal ma ñeenti ñii ñeent ñooñu nag la lay limal nee na yàlla yàlla nag ma fegal loru ki nga xamante ni dégg na ci man yiw ba pare di ko nëbb koo xam ne day suul sama jëf day suul ker te sax suul ker moom mënu koo teree fii waaye moom loolu la bëgg maanaam moom lépp lu mu dégg ci man ci lu baax non seulement bu dee moom laa ko defal da koy nëbb waaye ku ma ko defal it da koy nëbb waaw loolu dex arab daan isa du waqat bana isa du final xayru jaasal man nu yenn saa yi nag wax dëgg yàlla bu ñu nëbbee yiw sebu day dagam loolu waxi wolof la waxoon kon mu ni yàlla yàlla nag ma fegal loru ki nga xamante ni su déggee ci man ak mbaax da koy nëbb ndax du bëgg kenn yëg sama mbaax googu waaye yàlla nag ma fegalit loru ki nga xamante ni bu déggee ci man safaan da koy siiwal lu mu dégg ci man lu baaxul bu soobee yàlla du tëdd ci lal te du képp ku ko war a yëg ak ku ko war a yëgal sax dina ko yëgal ndax rek lépp lu mu ci jublu mooy laal ma gaañ ma blessé ma loolu rek la ci jublu moo tax lépp lu mu xam ci man safaan yow mi ko gën a xam suturaal ma dem moom fa fasuma yéenee suturaal waaye dina ma weer ba ñëpp xam ni lii def naa ko macha comme ni muy nëbbee sama lu baax noonu lay feeñale sama sama lu bon loolu koko attanu ma ko yow sama borom yalla nang ma ci mussal ñettel mi nga mugal mu nga mussal ma yit ci loru ki nga xamanteni daf may jëw sama ginnaw ki nga xamanteni ni fas la yene suma ma rek mu jëw ndax kooku dafa graw ndax jëw mom li ci yalla wax dafa graw mooy melni lek yap yap nit ku faatu mun kon kooku am fitu nak dima jëw yalla yalla nang ma fegal lorom kooku ndax attanu ko bi mu ni koy yalla yàlla ma fegal fer fay loru ko xamanteni mom dundam yépp day surveiller sama mbir rek sama dund dal lay surveiller way ci kiñan saa yu xëyee mu ngi xol ndax amna avancement mu makoy iñane di set lu makoy yakale lu ko fexe ba du sotti mom dal lépp lu may avancer lo lol lay xëy diko geussu lu mu ci xam nak fexe iñane ma ko ba jéem ci yakal yàlla ñent ñi ma ci ñom dara yow yaama leen mëna fegal yàlla nak ma leen fegal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu